yéen suñu mbokk internet mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee Golbert Diagne am na ab carrière gu màgg ci wàllu artist waaye tamit ci wàllu tasub xibaar ci ay nag at yu bari Golbert Diagne ñëpp xam ko ci mën a reetaanloo nit ñi waaye tamit di mën a yee ñi ñi ci ay kàddu yi nga xam ne daan na ko yëkkati jëmale ko ci société bi waaye tamit ci théâtre yi nga xam ne daan na ko amal loolee nag di dayoom daal di wër Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Afrique moom moomee di Golbert jaañ nekk koo xamante ne dafa màgg loolu ca diwaanu Saint-Louis mu am fa rajo bu mag boo xamante ni taxawal na ko fa den ak gouvernance bi ci immeuble yi ñu naan Rogna ca place Faidherbe ñaar fukki at ak ñett muy diir gi nga xamante ne rajo boobu di Teranga FM bu Saint-Louis teg nañu ko ca diwaan ba loole amoon ci atum 1996 ci njiitalu ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara Diagne Golbert nekkoon njiital troisième chaine RTS bu ñu daan woowee Voix du Nord gannaaw liggéey gu mucc ayib bu kenn dul natable bu rëy bi nga xam ne defal na ko réewu Sénégal moom Golbert Diagne mu daal di jël retraitam taxaw mobiliser ay fonds ngir saa su ne baatam di jib ci loo xam ne dafay jëmale réew mi kanam ba tax na am na émission boo xamante ne daka daan def saa su ne ci rajoom boobule ngir yee askan wi waaye tamit xamal doomu ndar yi ni ñoom kese ñoom ñoo mën a indi développement ci seenub diwaan mu daan nag wax lu bëri dëkk si dëkk bi defar dëkk bee ko gën mu doon ñaax nag ndaw yi ci wàllub développement ak am jom moom taskatu xibaar bi nekk tamit comédien bu ñu ràññee may na ay ndaw yu bëri xibaar yu bëri yoo xam ne tey ji la ñu ngi leen di dégg fépp ci Sénégal Golbert Diagne at bu nekk daraan amal jàngub alxuraan ci cimetière yu Mahmiyal bu Soor Cem ak Càkka Njaay bu Guet Ndar boobu boobule amoon daye loolu ba tax na fépp la nit ñi daan jóge ci réew mi di utali Saint-Louis ngir fekkee ko bëgg gi nga xamante ni bëggoon na ko diwaanu Saint-Louis ba ñëpp xamal ko ko tax na saa su ne daf ko doon aar di ci jibal ay kàddoom ba taxoon na demoon de mag ko ciy xalaat di ko ci woo Alioune Badara Diagne Golbert bokk na ci ñeent fukk ak juróom benn dignitaire personnalité yi nga xam ni am nañu ordre du Grand Croix et du Mérite ci weeru décembre atum 2015 te njiitu réew mi Macky Sall tappaloon leen boobu lépp raaya niki tey nag génn na àdduna ci atum juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent gannaaw ab feebar bu yàgg boo xam ni euh, tëral na ko mu ngi génn àdduna nag ca hôpitalu diwaan bi nga xamante ne moom la mës a bëgg di diwaanu Saint-Louis. suñu mbokk internet yi mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Baol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee